gis gistu info mu génne benn information euh, mi information baa ngi circulé nag fépp ci réseaux sociaux yi euh, defe naa yéen ñëpp gis ngeen ko donc euh, li ñu wax ci info boobu mooy que sëñ Bass Abdoul Khadir dafa am ña neuf hectares yoo xam ne dañ ko ko offrir président Macky Sall moo jël neuf hectares doomu Sénégal Eh, il faut ngeen am loo leen leeral du littéral bi il faut ñu am loo xam ne dañ koy leeral tey ngeen leeral ñaari affaire yu différent la xam nga littéral bi Barthélemy Diaz dégg ngeen mu ciy wax am na ay kàddu yu bari yoo xam ne di nañ ko ci ñëw leeral lii c'est quelque chose totalement différent du littéral lii maanaam terrain la bu ne jaxaran ñu jël ko muy neuf ñu jël ko jébbale ko sëñ Bass Abdoul Khadir sëñ mbas Abdoul Khadir jaay ko cinq milliards comptant cash mu dugal ci poche c'est extraordinaire si facile que ça ñu may la neuf hectares juróom-ñeenti hectares yow jullit nga ay jullit la ñu ñun ñëpp on est des musulmans parce que euh, dañu dégg lu bari xale yi di ko def ci réseaux sociaux yi te man ànduma ci man man bugguma tey kuy jóg di ŋaññ euh, sëñ Mountakha Bachir wala kuy jóg di ŋaññ maanaam euh, les xalif généraux bugguma ko I don't like it parce que li may wax toujours la rek euh, ñoom dafa am lu leen fi indi et ça n'a rien à ak li nga xam ne ñun moom la ñuy xeex mais il un système qui est vraiment caricaturé un système qui est vraiment sale un système qui est vraiment maudit te lii bi ma ko déggee ñun amuñu lu dul di ñëw di wax dëgg Mais moi, ce que je ne sëñ Bass Abdou Khadre kañ la yellool neuf milliards like lu mu def senegal ba mérité neuf hectares yoo xam ne dañ koy jël di ko ko jox moom mu koy jël di jaay di lem xaalis bi di dugal poosam xanaa moom moo nu gën a liggéey ndey ñun walla moom moom moom Sénégal walla moom moo ñu ëppale ñun ci senegal wala moom maanaam dafa am benn euh, asamaan wala beneen yàlla bu ko sakk bu wuteeg suñu bos moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas I don't understand I, I, I'm, trying to understand this parce que it's mind boggling xam nga barki démb barki démb boo njaay boo leen fàttale ko Assane Diouf mës na fee génn ndeysaan toujours nag yàlla may ko dëgg ci kaw doomu aadama yi mu ne nañ nañ ko wax sëñ Bass Abdou Khadir nu mu def ba nekk milliardaire nañ ko ko wax maanaam lu muy liggéey ak lan la def ba yellool nekk milliardaire biñ ko waxee bi mu waxee loolu euh, automatiquement il a été attaqué il a été on est allé chez lui saccagé indi ay jaasi nangam nangam ñu jàpp ko dugal ci biir dafa am lu ma dérangé ci loolu yëpp sa sëñ Bass Abdoul Khadir ba léegi tufliwul yàbbiwul ci ne gouvernement bi bu leen jàpp Assane Diouf ngeen dugal ko ci kaso bi ça passe rien parce que c'est pas normal ce qu'il a demandé c'est c'est c'est normal li mu laaj dafa normal c'est ça c'est ça xam nga dafa am loo xam ne kon ni ma leen koy waxee toujours euh, boo ci nekkee nga ne da ngaa bëgg dimbali ay doomu aadama euh, Sénégal dafa doon réew mu sensible am na affaire yoo xam ne ñun duñ ko bëgg a laal parce que pour lan dañuy ne nañu am lu ñu leer nañu am loo xam ne daf ñu leer bu bu ñu leerul duñ ko wax mais bu ñu leeree dinañ ko wax te àdduna bi yëpp dañuy bëgg ñu déggu xam nga barki Demba Ndiaye bi fi Assane Diouf génnee dafa am ay doomu aadama yoo xam ne ñoom ñoo demoon këram ñu attaqué ko ñu ñu ne dañ koy faagaagal dañ koy gaañ parce que dafa laaj question et je demande la même question. sëñ Bass Abdoul Khadir lan la def tey ba war a mérité Macky Sall di ko jox neuf hectares doomu sénégalais neuf hectares yoo xam ne doomu senegal yëpp ñoo ko bokk man ci laa bokk yow ci nga bokk keneen ci la bokk ñun ñëpp ci lañu bokk léegi sëñ Bass Abdoul lan la def ba mérité lool loolu ku ma ko mën a wax rek dina ma neex lool que on habite au Sénégal réew réew mi Sénégal la tudd te Sénégal ñun ñëpp a ko bokk maanaam si tu es citoyen la nationalité sénégalaise ci fais partir de ce Sénégal maanaam ci Sénégal boobu rek nga bokk ñun ñëpp ci la bokk léegi lan moo waral ñun ñëpp ñu bokk benn Sénégal bi ñun ñëpp ñu bokk ci benn réew mi. ñun ñëpp ñuy fay impôt ci benn réew mi ñun ñëpp ñuy xeexal benn réew mi ñun ñëpp ñu bëgg a jàmm benn réew mi ñun ñëpp ñu ne benn bopp la kenn mënu koo xarñaar ñaar benn doomu aadama di ci yor neuf hectares di ko jëfandikoo maanaam moom dong mu jël ko aakimoo ko moom ko jaay ko ay koppar et puis xam nga dafa am loo xam ne nag nañ ko waxante mu leer dafa dafa dama bëggal leeral lii doomu sénégalais yi mu leer ci seen bopp ñun kenn moomuñu ñun kenn moomuñu te kenn duñu teree wax amul benn doomu aadama boo xam ne ci àdduna bi man ragal naa la wala faale naa la li nekk ci man du ma ragal ko wax amul kenn nag bu ma paree wax ba pare damay dem julli ci jàkku murit yi sama mbokk yu baax yi damay dem julli ak ñoom bu ma paree damay dem julli ci jàkku tiijaan yi aw ma sens interdit ku ma bëgg a gis nag nag ma woo fa ma bëggee gis anytime anytime nag laa wax parce que ñun anytime ku ma bëgg a gis boo ma wooyee ak come si you tey bu ma association murit yi nekk New York convoqué woon ma dem wuyu leen parce que keroog bi may wax ci euh, temps élection yi bi may wax ci imam euh, gis nañu ay ay nit yoo xam ne yu baax yoo xam ne vraiment bi élection yi jeexee nee nañ ma vraiment comme diw bàyyi na wax ci yéen te aussi mu nekk imaamu euh, société bi fii nañ ko may cër nañu may société bi cër ñu bàyyi donc ma bàyyi ma teg loolu ci suuf mais affaire sëñ Bass Abdul Xaadir bi dafa nekk ci internet bi yëpp lii man binduma ko inventé wu ko indiwuma ko créé wu ko dañ ko jël dugal ko ci li nga xam ne moom mooy internet bi adduna bi yëpp di ci teg bët te duma ko wax benn ñàkk teggin nag duma ko ci teg duma ko saaga duma ko xas duma ko wax lu ñaaw mais je sais que ñun man rusloo nañ ma man man am naa gàcce parce que man li tax ma am gàcce xale yi bi ñuy fippu ñun ñooy ñëw di di calmer xale yi di leen jàpp naan leen déet déet bu leen def lii déet bu leen wax lii déet bu leen wax lii nañu teg yëpp ci yar ak teggin mais xam leen ne lii mënul jëmale senegal kanam parce que tey man man naa comprendre Touba lépp loo xam ne ma nga fa titre foncier la sëñ Bass du Khadir na dagg ay terrain am Touba lu ko neex mu def ci mais pourquoi ñuy ñëw encore léegi Dakar di dagg ay hectares di ko jox sëñ Bass Abdou Khadir mu koy jaay mais loolu pour lan du ay jàkk yu mu koy tabaxee du ay école yu mu fa def du ay du lu mu fa def loo xam ne day njariñu day njariñu Sénégal loolu moom ma ci jaaxal loolu rek moo ma ci naqari li nga xam ne bu fekkoon tey sëñ Bass Abdou Khadir dañ ko jox terrain boo xam ne par exemple c'est dix hectares mu jël ko def ci stade pour jeunes sénégalais yi parce que am na ko koppar yu toll noonu mu def ko loo xam ne Sénégal ñoo koy njariñoo comme man tey mën naa dem laaj gouvernement Sénégal terrain ma ne leen vraiment dama am projet boo xam ne day dimbali Sénégal day avancer loo Sénégal Sénégal moo ci njariñu I can understand that mais ñu jël mënuma comprendre ñu jël neuf hectares mayati nañu Assane Diouf encore dëgg mayati nañu Assane Diouf dëgg Assane Diouf amati na beneen dëgg encore ci seen kaw Assane Diouf amati dëgg parce que lii la ma sa laaj lii la ma sa toog këram mu ne man li ma bëgg a xam ci senegal man xam naa sëñ Abdou Bass Abdou Khadir Assane Diouf taalube la sëñ Bass Abdou Khadir taalube la d'accord nest ñoom ñëpp ay taalube lañu sëñ bi guddi yi ñu toll mooy sëñ Muntaxa Bachir yàlla na fi yàgg wér kooku mooy sëñ bi sëñ bi du sëñ Bass Abdou Khadir sëñ Ba sëñ Bass Abdou Khadre taalube la ñun ñëpp nag ay taalube lan ñun ñëpp ay taalube lan ak borom tarixa bu mu mën a bokk taalube kenn nga du dëgg léegi li ma mënul comprendre sëñ Bass Abdou Khadre ban maqaama la am ci Sénégal ban valeur la am ci Sénégal ba ñu koy jox neuf hectares yoo xam ne moom daf koy jaay mu brader ko jël cinq milliards dugal ko ci biir poche léegi ma bëgg a dara lan mooy différence su sëñ Bass Abdou Khadir ak Mame Mbaye Niang lan mooy différence su sëñ Bass Abdou Khadir ak Mamour Diallo lan mooy différence sëñ Bass Abdou Khadir ak tous les voleurs de l'État lan lan la wuteeg ñëpp parce que lii càcc la du lu jub càcc la du lu jub c'est ça la réalité xam nga luy dëgg man kon ni ma ko waxee rek amul benn doomu aadama boo xam ne dafa am lu ndaw loo xam ne man dama la ko dencal. man lu ma am pour wax ko dama koy wax ma pare ci te sama kanam laa ciy wane je prends mes responsabilités amul kenn koo xam ne dama laa ragal du ci nii du ci nere ak loo mën a xalaat ne moom nga mën a def ci àddina donc hésiter duwe bu dëgg ñëwee dëgg bi rek lay concentré wu ci nit ki mu concerné rek tamit lay concentré wu du ma concentré wu ci sëriñ euh, euh, Modou Kara du ma concentré wu ci sëriñ euh, maanaam sëñ Baara duma ma concentré wu ci sëriñ bii duma ko déedéet ki ma con ki ma est concerné mooy ñun dañu ñëw di waxal Sénégal léegi ci senegal boobu ñuy xeexal Sénégal boobu ñuy xeexal ñu ñëw gis ay doomu aadama yoo xam ne dafa am loo xam ne dañ koy def ci Sénégal boobu et c'est pas acceptable léegi dama joxe aussi numéro boo xam ne. ku bëgg a dugg vraiment bëgg naa ngeen dugg dama joxe numéro léegi ku bëgg a woote di nga mën a woote ci numéro boobu nga dugg ngeen jëggal ma pour ngeen participer aussi am na euh, ku ma gis fii muy saaga euh, Ablaye Gueye Ablaye Gueye gis naa la ngay saaga donc euh, dama lay bloqué parce que yaradeku jég paasewul ngay saaga koo xam ne xamoo ko ñun bëgg nañu kuy saaga nga ñëw taxaw suñu kanam man New York laa dëkk. xam naa sama xarit yu baax yi yëpp on se ku bëgg a saaga da ngay ñëw sax ay ay euh, ginnaaw écran loolu yara def parce que li ma fi wax tey saagawuma kenn dañu ne tout simplement dafa am loo xam ne dafa ñaaw ci Sénégal te gis nañu ne euh, am nañu gone yi am nañu dëgg suñu kaw les jeunes gone yi gis naa ne am nañu dëgg sama kaw parce que bi mbir mii di ñaaw Euh, gars yi jéggal leen ma am na ku bëgg participer am na ñaari nit yu woote pour bëgg a participer voilà ah,